pencum Dakar TV chaîne bi leen di jox xibaar yu wér te wóor ci tàng tàng bi pencum Dakar TV. ak jaay doole guy raam jëm ci askan wi jóge ci nguur gu bees gii loole nag mën a nasaxal démocratie ak yoonu réew mi ci réewum senegal nekk réew boo xam ni réew la mu ñu respecté ndax démocratie boo xam daan na koy am. kii di wuyoo nag ci turu Ousmane Sunkara daal taxaw wax ñëpp di dégg ci penc mi ni moom mi daal daal dina nag financé ay attaques terroristes yoo xam ni mi ngi ko def ñeen réewam di Sénégal mu ni loolee daal warul woon a des loo xam ne rek dañ koy seetaan te yoon waroon na ci def li nga xam moo di liggéeyam. Tunkara daal dinay wax ni moom mi daal bokk na nag ci mbir moo xam ni te waral na ñaari xale yu jigéen daal ci ñàkk seen bakkan ci ab attaque boo xam daan nañ koy amal ci ab biis fële ca yaraax daal ni loolee daal bokk na nag ci li mu wax daal ne moom mi daal dafa financé li nga xam ni moo di ay cocktail molotov loolu daal waral nag nasaxal li nga xam ni moo di jàmmi réew mi mu ni waaye nag loolu daal dafa mel ni taxul rek benn yoon yoon daal di jug daal dal ci kawam mu ni loolu daal day wane nag ak arbitraire boo xam ne am na ci ndax li mu bokk ci parti bii di Pastef nekk ab parti politique boo xam ne jamono ji ñoom ñoo yor li nga xam ne moo di nguur gi daal di loolee nag Ousmane Tounkara mu nga ca États-Unis dëkk fa nekk ci jàmmam daal ne nag ba tey daal euh, li ñu seetlu daal mooy ne nag euh, ñàkk a nag euh, ñàkk a teggi daan googu daal mel na ni mbir la moo xam ne mbir mu normal la ci ñi bokk parti bii di Pastef mu ni rawatina nag buñ bokkee ci li nga xam ne nag moo di mouvance présidentielle bi kii wuyoo ci turu Assoura mën nañu jël ci moom misaal moom mi daal daal nay taxaw nag daal di saaga ki nga xam ne moo nekk njiit réew bu Sénégal di Bassirou Diomaye Diakhar Faye waaye nag ba tey jamono ji daal ñi ko gis ci wetu premier ministre bu Sénégal muy njiitu jëwriñ ji di Ousmane Sonko daal ni moom Ousmane Sonko mi sax daal ci jamono nag di nga xamee ni mi ngi nekk ci opposition bi doon na def li nga xam ne rek moo di saaga li nga xam moo di ay institution jamono joojee nag mi ngi nekk ci opposition bi daal ni loolu nag day wane daal ak naa feex gu jéggi dayoo daal ni lii nag war na indi ay laaj ndax euh, ndax yoonu Sénégal moom mi daal mi ngi tëddee li nga xam moo di njaxanaay sëriñ baa jaxate moom mi daal ab lanceur d'alerte la boo xam ni ku ànd ak courage la ci li muy def moom mi daal di koy jël nag daal di koy yóbbu fële ca nungu siin ginnaaw boo xamee nag daal génn yuuxu ak jéebaane mbir yu euh, jéebaane ay mbir yoo xam ne daal lu ñu war a ñaanu la comme jàppale li nga xam ni moo di borom ñaari tur yi mu loolee nag dafay dëppoog sax ci li nga xam ni digal la wala ndogal bu jiitu réew bi jëloon di Basiiru Jomaay Jaxaar Fay moom mi daal doon wax nag ak di jàppale ñi nga xam ni ñoo di doomi Sénégal yi ngir daal ñuy bàyyi xel ak nag di ñaawlu ak di jéebaane li nga xam ni mooy euh, ñu jalgati yoon loole nag daal di wax ne nag mooy ay digle yoo xam ne nguur gi daf koo jëloon daal di nag indi sax loo xam ne ab luwaa lay doon ngir nag sàmm ñi nga xam ne dañuy ak jébaane daal di loolee nag dafa mel ni daal nguur gi mujj ko rek jëfe benn yoon ñi nga xam ne dañu commencé nag di dénoncer maanaam di jébaane li nga xam ni moo di jumte wala ñaawteef yi nga xam ne ñu fi nekk nguur gi jamono ji ñu koy def ñoom ñi daal dañuy dal seen kaw ci lu àndut ak benn yërmande lolé nak and ak jappalé ak ñi nga xamni ne ñoo di wa passif dal ni amna ay nit yu mel comme maymuna bussa wala sax bara ndjay ñom ñi nak dañuy woté ci lu amul benn nebo dal ngir ñu nak salfañé li nga xamni mo di réew mi ni nak ñi ngi wo ñi nga xamni ño bok ci seen parti ñu dal di ànd daal euh, def nak ab campagne bo xamni dañuy saga ak nak di dal ci kaw nit ñi nga xamni dañuy critiquer manam dal di jébané ay mbir yo xamni premier ministre bi fi nek Ousmane Sonko wala sax jomay jomay euh, Sonko ak maymuna bussa mi dal ñom ñi nak dañu doon encouragé ñi nga xam ne nag ñooy dañuy songu li nga xam ne moo di euh, doomi Sénégal yi waaye tamit di songu ñi nga xam ne ñoo di seen ay famille loolee nag waral mu indi ak ñàkk jàmm ci réew mi daal di wax nag daal di jàkkaarloo ak mbir yooyu yëpp nag procureur fan la nekk moom procureur bi nga xam ne moom mi daal moo nag jàppalu ki nga xam ne moo di opposant bu mel ni Bah Diakhaté ak ki nga xam ne moo di Cheikh Tidiane Ndaw daal di loolee nag moom daal di noppi nag ci ay mbir yoo xam ni mbir la yuy woote ngir indi fitna ci réew mi ak daal salfaañe li nga xam ni moo di jàmmi réew mi te ñu koy woote di ay nit yoo xam ni bokk nañ ci euh, parti bii di parti Pastef daan loolu yi nag dafay wane rek yoon woo xam ne daal dafay am kumba am ndey ak kumba amul ndey ñi nga xam ni dañoo bokk ci nguur gi maanaam dañoo ànd ak ñi yor réew mi ñoom ñi daal dañu leen di sàmm ba dara du leen dal ñi nga xam ni nag ñoom ñi daal ñoo àndul ak ñoom dinañ leen noppiloo ci benn façon buñ ko mënee daal di jamono jii nag réew mi li fi xew dañuy fàttali rek benn baat bu wolof daan wax fat doom dóor doom loolu yi di firi et battant celui d'un autre daani nag ñi fi nekk jamono ji jiiti réew mi ñoom ñi daal dañu jël li nga xam moo di songu ak euh, jël justice bi jàppee ko loo xam ne daal dañ koy jël nag ngir di daal ci kaw nit ñi ngir di sàmm sax ñi nga xam ni loolu mooy seen ay intérêt ak daal di jël yeneen doomu aadama yoo xam ne àndu ak ñoom di ko tayle ak di tayle li nga xam ne moo di suñu démocratie réew ak li nga xam ne moo di àq doomu aadama yi daal ni googee jaay doole nag muy dictature boo xam ne daal luy raam la jëm ci ñun loolu nag dafay waral rek ba citoyen yi ñu am kóolute ci ñi nga xam ne ñoo leen jiitu daal ni fen nag ngir jiite ba pare continuer di fen ba nar perte li nga xam ne sax euh, moom nga jiite loolu nag daal peuple Sénégal ñoom ñoo war a yeewu bàyyi xel ni nag lii ni daal di jëm ci ñun ab menace la boo xam ni menace la bu doy waar te régime bii fi nekk mooy ñi nga xam ne ñoo fi nekk jiite réew mi daal ndar nañoo nag euh, euh, salfaañe suñu démocratie ak li nga xam ne moo di suñu yoon daal daani nag engagement boo xam ne nag engagement bu dëgër lay doon ñu ànd ko xeex li nga xam ne moo di dëgg ak li nga xam ne moo di tolloole ak jëm ci li nga xam ne moo di leeral ngir daal loolu daal ñuy may nag ñu mën a sàmm li nga xam ni moo di suñu réew jëlee ko ci loxo yi ñi nga xam ni ay dictateur lañ daan askan wi nag dañoo war a des maanaam di bàyyi xel bu baax ak nag pare ngir sàmm seen réew waaye tamit sàmm seen ay àq ci lépp loo xam daal façon la boo xam dañ koy jël jëlee ko ci ak ëppal wala ci ak jaay doole daani nag li nga xam moo démocratie Sénégal Euh, moom daal war naa am nag lu ëpp lii maanaam démocratie Sénégal nag mérité na lu ëpp lii ñi nga xam ne ñoo fi jiite ñoom ñi daal daal di jël nag jiital li nga xam ne moo di jaay doole ak nag di jaxase muy manipulation ak daal jël justice bi nag di ko xeexee mu ni li nga xam ne moo di yoon ak dëgg dañoo war a ànd ngir xeex ko ngir am Sénégal boo xam Sénégal bu moom boppam lay doon Sénégal boo xam ni nit ñi dañuy tolloole waaye Sénégal boo xam ni yoon dafay moom boppam daal ni loole nag dina waral ñun ñëpp ñu mën a moom suñu bopp ba nga mën koo manifesté wu te dara du la ci fekk loolee nag ki ko xam ne di Amé Souleymane Diop nekk ab responsable politique bokk ci parti bii di les serviteurs bu paysan Papa Djibril Fall